Bonjour, Mesdames, Messieurs. Communiqué numéro 61 sur la situation de la pandémie COVID-19 au Sénégal. Ce vendredi 1er mai 2020, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a les résultats des examens virologiques ci-après. Sur 901 tests réalisés, 91 sont revenus positifs soit un taux de positivité de 10,09 pour cent. Les tests positifs sont répartis comme suit. 88 contacts suivis par nos services, 3 cas de la transmission communautaire répartis entre Castor 1, Darou Minam 1 et Saint-Louis 1. 22 patients hospitalisés ont été déclarés négatifs et déclarés guéris. Deux cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation et de l'hôpital principal. de santé des autres patients hospitalisés est À ce jour, 1024 cas ont été déclarés positifs au Sénégal, dont 356 guéris, 9 décédés, 1 évacué et donc 658 sous-traitements. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention collective et individuelle. Bonne fête de travail à tous et à maa ngi leen di ñëw di jottali lim bi ñu am. ci mbas mi ñuy wax Covid ci Sénégal ci bésu tey bii di àjjuma di 1er mai 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na yi résultat ci juróom-ñeenti téeméer ak benn test yi nga xamante ne réalisé nañ ko juróom-ñeent fukk ak benn dellu si nañ ci am doomu jàngoro ji ci yooyu juróom-ñett fukk ak juróom-ñett moom la ñuy wax contact yi nga xamante ne suñ bërëbu liggéeykaay yi ñoo leen di topp am nañu ñett yoo xamante ne moom lañuy wax cas communautaire mooy yi nga xamante ne kenn xamul ku leen ko wàll may fàttali ne ñoom nag nga yokk mbas mi di li ci Sénégal ñett yooyu ñu ngi ci diggante Castor am na benn Daaru Minam am na benn Ndar am na benn ci malaat yi nga xamante ni ñu ngi tëdd ci bëri bu fayukaay yi ñaar fukk ak ñaar bañ leen saytoo gisatuñ ci ñoom doomu jàngoro ji wër nañu am nañu ñaari cas grave rek yi nga xamante ne ñu ngi leen di am ci service réanimation yi ci l'hôpital Fann ak ci l'hôpital principal yeneen malaat yi seen wér gu yaram mu ngi am tan bi mbas mii ñuy wax covid 19 duggee Sénégal ba léegi senegaal nag egsi na ci junni cas ci bésu tey bii mu ngi tollu ci junni cas ak ñaar fukk ak ñeent ñoom ñoo am tey jii doomu jàngoro ji ci yooyu ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom benn wër nañu kenn gisatul ci ñoom doomu jàngoro ji juróom-ñeent yi génn nañ àddina benn bi delloo nañ ko ci dëkk ba mu jóge woon fi ñu toll nii ñu ngi ci juróom-benni téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñett yi nga xamante ne ñu ngi tëdd ci bërëbu fajukaay yi. ministère de la santé et l'action sociale mu ngi dooleeti di ñaax askan wi nañu gën a dolli di déglu li nga xamante ne moom lañ leen di wax li ñuy wax geste barrière ba tax doomu jàngoro ji génn fii ci dëkk bi kenn dootu ko am te dootu wàll fenn. ci turu ministre de la santé action sociale monsieur Abdoulaye Diouf Sarr mu ngi souhaité bonne fête du travail liggéeykat yépp ñu nekk ci secteur informel comme ñu nekk secteur formel maa ngi leen di gërëm leen di sant wasalaam.